99 cas contacts suivis par nos services, 25, 27 cas importés à l'AIBD, 19 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. Point E 1, Matam 1, Mermoz 1, Sikap un Tivaouane un Diourbel un Touba cinq Colobane un Médina un Grand Yoff un Plateau un Guédiawaye un et enfin Keur Mbaye Fall un 128 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris 22 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 4 nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos structures ce vendredi 12 juin 2020. À ce jour, 4 996 cas ont été déclarés positifs, dont 3 228 guéris 60 décédés et donc 1707 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. tey bésu samedi 13 juin 2020 ministère de la Santé et de l'Action sociale jot na résultat examen yi may waaj a lim ci junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett test yi ñu def téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñoo ci positif maanaam juróom-ñeent fukk ak ñeent ay cas contact lañ ñaar fukk ak ñaar di ay ka importé fële ci aéroport international Blaise Diagne fukk ak ñeent di ay communautaire benn ci Point E benn ci Matam benn ci Thiaroye benn ci Mermoz benn ci Sicap Mbao benn ci Thiadiaye benn ci Tivaouane benn ci Diourbel juróom ci tuuba benn ci Colobane benn ci Médina benn ci Grand Yoff benn ci Plateau benn ci Géejawaay ak benn ci Kër Mbay Fall téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ci malade yi ñu ospitalisé woon wër nañu bésu tey ñaar fukk ak ñaar ci suñu malade yi ñu ngi ci suñu service réanimation yi ñeenti malaat ñàkk nañ seen bakken démb ajuma 12 juin ci suñu service hospitalisation ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk bi Sénégal am wàññi nañu ñeenti junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk juróom benn cas yoo xam ne kaayu positif la ñetti junni ak ñaari téeméer ak ñaar fukk juróom-ñett ñoo ci wër juróom benn fukk ñàkk ci seen bakkan mu des ci suñu service yi malade yi nga xam ne ñu ngi leen di traité junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñaar